قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا بما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال yaa ayuha annaasu inna minkum munaffiriina fa ayukuma salla binaasi fal yujiz fa inna fihim alkabira wa daifa yonent wa sallam waaye moom ne ko man day jullit suba daal du koy fekke ndax suñu élimaan yi daal la koy guddal a guddal a man mënuma ko muñ ma far di julli ci sama néeg mu ne mosuma gis yonent mer ci waade ni bésab keroog mu dal di yéeg mimbar ba ne am na ci yéen ñoo xam ne dañuy dawloo nit ñi diina <coughs> Muaz ibnu Jabal la woon dafa julli ak saaru baqara yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax nattukat nga bëgg a doon ndax nga bëgg a nattu ñi ci seen diine ñu génn ñu génn diine ji ku ci jiite ay nit na woyofal ah, lu tax ngay jàng saaru baqara lu te rek nga jàng ci xisaaru soor yi <coughs> boo jiitee mbooloo ku feebara nga ca ku màggata nga ca kuy nampara nga ca ku am xaajoom yàkkamti ca dema nga ca koo nag ku jiite na woyofal woyofal googu nag mu santaane du jaageen topp bànneex ab ya ci nis bii la <coughs> gis nga kii baqara la defoon ñu sant ko woyofal bañ a ci baqara te rewuta julli ci saar yu guddi yi waaye bu woyofal bi jubluñ ci nag def lu neex maamoom ya ba woyofal julli ga